sion dafay am aspect fiscal am aspect économique mu am aspect sécuritaire donc loolu euh, moo nekkoon thème euh, cette année mais loolu dafa nekk déjà réalité fii ci région euh, de la Casamance compte tenu des enjeux sécuritaires yu ñu xam moo tax déjà collaboration boobu noonu surtout avec les FDS dafa mus am et que dañ ko gën a renforcer et loolu dafa ñu dimbalee sax pour ñu mën a def suñu liggéey correctement mën Euh, def euh, résultat bi ma jugee joxe léegi boo xam ne am nañu ay recettes de plus de euh, cinq milliards loo xam ne mosuñu ko def quatre milliards sax mosuñu ko def ci région bi c'est la première fois kii résultat yi donc FDS yi dañ ci bokk chef de bureau yi chef de subdivision yi ak agent yi plus chef de brigade chef de poste agent yi ak personnel civil yi yëpp ñoom ñoo ci contribuer donc maa ngi leen di jaajëfal